asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp cat ba cat lim jumba do matale di nuyu waa Kër Ikaw yëpp nag bàyyi ma kenn góor ak jigéen mag ndaw ci une forte mobilisation bi ñu def di gërëm nag sunu kilifa diine bii nga xam ne moom fi toog Serigne Habib Sakho macha allah di gërëm Pate Ndiaye di gërëm xale yu góor yi fi nekk yëpp nag sunu conseil de quartier sunu chef de quartier. di gërëm xale jigéen yi toog sama gannaaw macha allah ak kilifa ay ay mag ak ay ndaw la ñëpp génn nañu di kontaan ci mobilisation bi na ndax Tëngéej ñu mel moom dafa naqadi ñëpp neexul ba neexul naqadi na ñëpp kër bu njëkk ba référence la woon waaye ñu dem ba mu nag ñëpp am lu leen naqadi ci nu mu mel ah Pape nag Diop ñu naan ko jëriñ ah Amsatou président ñoom maam Abdou ñëpp génn. te daal dañu war a def génn leen yéen jigéen ñu defaraat këri kaw wax defar demee defaraat ndax defar woon na ba pare te dafa mujj yàqu bu ndawee bu tawee nit ñu sonn bu xasee ba xiin sax nit ñu jaaxle loolu daal moo ñu yëkk di motiver ñu ba génn ñëpp génn ñu takk ko nag ne dañuy jëkk set setal ba pare waaye UCG nag jàpp ci loolu nag ak mairie de la ville ak kilifa yi fi ne nag ci ci gox bi ak diaspora bi ñëpp jàpp nañ ci macha allah loolu ñu tax génn nag. nga xam ne ni mu mel naqadi na ñëpp moo tax ñëpp génn kontaan nañ nag ci seen taxawaay jërëjëf. dëgg la. bi may def mooy booloo nekk benn waaw ñu doon benn say ndax yeneen projet gi ci biir liggéey këri ko ba mu rafet ba mu mucc ayib bëgg nañu def pavage dëgg nañu it saxal ay garab dëgg nañu it bu doon groupement bu rëy boo xam ne lu këri soxla ñu taxaw ci dëgg nañ social loolu tax nag ñëpp génn góor jigéen mag ndaw loolu daal moo ñu motiver ci loolu daal la ñuy taxaw bëgg na ku ñu ci gën a jàppale gën ñu ñoo dooleel ci kàttanu yàlla